tey naruma woon génn mais je sors pour vous dire ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas impressionner par les bruits de manche de ceux qui mënu ñi mënut a dem te bëgguñu ko dem dama ne yéen ñi bëgg président sa Seck bu leen kenn jaxase ak président sa Seck bu kenn naan seen yuur bu leen kenn influencer pour que ngeen taxaw di ngañ président Idrissa Seck ndax ña leen di wax tey ña di wax tey ginnaaw barke démb lañu waxoon ni nañu fusiller tout ce qui était dans le système ba seen intérêt stratégique taxawee dañoo dem raamal le père du système muy Abdoulaye Wade ña leen di jéem dox seeni yuur tey naan leen dealer dem nañu ba ci kër Abdoulaye Wade di ko raamal pour am deal ak Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade jaar ci kawam mayu ko benn deal ginnaaw barke démb la barke démb lañu dem wuti deal raamal ko jaar ci Atepa di woo Atepa night and day pour que mu dimbali ko affaire bi am Abdoulaye wadd soutenir ko Abdoulaye wadd jaar seen kaw wut nañu deal ba sonn mënuñu am deal bu leen Macky woowoon ñu jël ndax gis nañ fi barke démb lañu fi génne seen i ba ñuy raam di wuti audience ci Macky Sall sa Seck kenn amul audio buñ koy génneel naan mu ngi wuti audience. donc da ngeen war a ne tàcc yéen da ngeen war a noppi amul leen loo leen di wax amul leen koo leen di jox la soo amul leen koo leen di lijjanti parce que lii ngeen yenu mu ne fàng ne weñ lijjanti leen ko. lijjanti leen yéen ñaar yi ma leen tegal nii ngeen doogu ñëw di lijjanti li li ñuy wax sa Seck ndax yéen barke démb fii barke demb fii ngeen fi ñëw di rampeel le père du système te da ngeen ne woon dañ koo war a fusiller di wut ak moom deal pour mën a yegsi au pouvoir d'accord vous aviez voulu vendre les Sénégalais parce que élection yooyu vous avez vous avez contribué à ce que élection yi ñu am résultat bi ñu am ci élection yi par votre votre roublardise et votre cupidité ngeen dem ci Idriss euh, ci ci ci Abdoulaye Wade di ko rampeel pour mu jox leen euh, veto pour mu defal leen mu soutenir leen donc yéen da ngeen jaay seen am ñu teg ci suñuy bët barki démb te dara nag amu fi dara amu fi parce que Abdoulaye wadd ba mu nekkee chef de l'opposition c'est pas vrai du dëgg du dëgg tey du dëgg ëllëg Macky Sall wutul aba avalu Sonko wutul convoqué Sonko lijjantiwul Sonko mani golo bu mu bu bëgg bu mënut jot ci taatu ci fuy bi day ne dañ golo yeneen golo jiitu nañ ko ci mënu leen fi gën a muus kenn xàmmeetu kon xamul leen ma woon ba may xàmmee ndax lii maa leen si jiitu gën leen ko xam ku ma ci xàmmewul tey rek danga ma xamul woon parce que man Sénégal laa mës a jiite Sénégal laa mës a jiite xamul leen ma ba may bañ a xàmmee dama ne réew dañu koy ay concertation la laaj réew unité la laaj réew géré ko intelligence la laaj réew ay grands hommes ñoo ko mën a téye Abdoulaye Wade ba mu ñëwee au pouvoir en mille li mu njëkk a def mooy dem seeti yaayu Abdou Diouf pour ñëpp nekk ci jàmm pour rassuré Sénégalais apaiser créer cohésion autour de l'essentiel avancer loo Sénégal yéen nag jàngu leen jongu xam-xam perte ngeen. amul leen métier parce que amu leen compétence professionnelle te defe ngeen ni kër di ngeen wax ci réseaux sociaux yi ba mën a dox ci maayunu kenn moi je suis là pour parler aux militants de Idrissa bu leen kenn gëlamal ci ay waxu kesew kese yoo xam ne gëmuñu ko ñoom ndax barke dem fii lañu ñu génnee yi te dafa taxawoon ne amul audience boobu amul lu ñu ci am nañ ko génne ba ñu génne audio yi mu doon mu mu mu carré mu doggaale ñooñu ne leen man waaw yow kon loolu yow loolu ngeen di wax loolu nga xam ne c'était avant 2013 xaw ma 2013 la woon mais on peut pas si on n'est pas euh, si on n'est pas patri peut pas ne pas croire en des choses en 2013 et croire en ces choses-là en 2014 donc mënu leen jox kenn leçon mënu leen jox kenn leçon parce que loo xam ne gëmoo ko 2013 ban malaaka moo la pes ba 2014 nga gëm ko donc mu ngi doon dox ci ay deal kooku mënul jiiñ kenn ay deal mënul leen yéen militant wu Idrissa Seck ak supporter wu Idrissa Seck yaa leen tax ma dugg ndax sama dox tey du woon pour dugg ndax lii kilifa bi wax leer na dafa am moment boo xam ne askan daf ciy toll dafay am mission si soit nga assume mission boobu wala nga trahir ko te nag bu réew soxlaa citoyen bi dafa war a fàtte boppam bu askan bi taxawee soxla citoyen warut a jiital égoom sama gars yi def leen ay cœur def leen ay cœur live bi loolu koy bëgg loo leen di bëgg a bloqué live bi ma ne diggee yàkkamti yàkkamti ngërëm la yéen nitu Ousmane Sonko lijjanti leen yéen Ousmane Sonko te may nit ñi jàmm lijjanti leen seen politique ak seen stratégie te may nit ñi jàmm parce que vous ne pouvez pas influencer qui que ce soit chez les gens qui réellement croient en Idrissa Seck fii la Idrissa Seck di xam ku ko bëgg ku ko bëggul ak ku dëggu nit ki boo amee kilifa la mu wax ngay toppoo waa koñ ba ban waa koñ ba la yow dama la xam Ousmane Sagna bay wax waa koñ ba ban waa koñ dag ma xam yow maa ngi lay doog a dégg maa ngi lay doog a gis dama laaj ko sa yaay am naa fulla ak fayda boo xam ne vous devez arrêter parce que vous êtes de petits xoolal buñ lay sa set bu nekkee gaynde yéen vous êtes des xam nga lan ngeen nekk ay janaxu dàmb ci kanamam ci politique c'est-à-dire que quand vous voulez jouer aux, aux, aux, aux, gens qui connaissent la politique, aux gens qui connaissent et qui maîtrisent, waxkat bu mag bi mooy kan kii wax ni pétrole moo tax nit ñi xam ko mu xëy suba teel daal di dem di allié wu ka nga xam ni moo moo moo indi ka suuxal pétrole Sénégal bi ci réew bi loolu du wóor looloy wóor yéen ban contrat la Idrissa Seck ak am ak yéen ban contrat vous n'êtes pas ses militants vous n'êtes pas ses amis Vous n'êtes pas ses soutiens. Vous n'avez pas voté pour lui. Et pourquoi vous voulez vous mêler de ce que Idrissa Seck fait comme stratégie politique ou comme décision politique Vous n'avez rien à voir dans cette décision-là. yéen nitu son yi dox leen ci seen seen mil seen waa ji te ngeen lijjanti dossier Mamour Diallo boobu ngeen lijjanti beneen dossier bi mooy euh, mu expliquer ñu comment par hasard il devait fusiller Abdoulaye Wade il a fini par ramper derrière Abdoulaye Wade après mu expliquer ñu il devait euh, non plus, c'est lui qui luttait contre le pétrole et il a rampé derrière Atepa, il a, fait du lèche à Atepa, ma am ci lu ma leer pendant des mois pour que Atepa dugal ko fexe ba paa bi jàppale ko ñuy wax déet après dafa soxla woon xaalis Atepa lay lay lay lay dungu la honte c'est ta maman Paco Ndiaye c'est la maman ta maman qui a créé un fils qui peut venir ici me parler de honte alors que je parle de quelque chose kii est dans l'intérêt du Sénégal man suma ma tànnee nit ni kii mooy sama kii mooy sama leader dama koy wóolu gis nga ni ngeen wóoloo seen Ousmane Sonko boobu ba nga xam ni bu fenee sax ngeen ne dëgg la wax bu defee lu ne weng ngeen ni defu ko man noonu laa wóoloo sa sekk te xam ni sa sekk am na xam-xam gëm na yàlla duma ko comparer sax ak seen leader bi tax ngeen ñëw fii di jéem a influencer live bi Idrissa Seck dëggu na sa Seck xarañ na il faut laisser les gens en paix militant sa Seck lay wax bu leen dara déstabiliser bu leen dara impressionner bu leen dara dugal ci toog di ngañ seen leader dama poste yi tax yéen li am fii ci réseaux sociaux yi dama ne bu leen kenn influencer buleen kenn influencer bu leen kenn influencer pour ngeen di wax lenn lu ñaaw loo bëgg xoolal li sa sekk def da ngeen koy soutenir parce que nit ki boo amee leader sa leader lu mu wax ci ngay dox sa leader lu mu wax moom ngay def waaye doo taxaw sa leader wax nga am leneen loo ciy teg sa leader bu waxee wii ngay wax waaye doo taxaw naan ay je suis déçu waaye lii wala laa déedéet du noonu vous n'êtes pas assez militant alors oui sëñ donc li may wax ci euh, waa ji duggoon léegi mooy Barack Obama dafa mosul woon dugg engagé wu comme ni mu engagé woo ren te loolu xam naa ni ay résolution yu mu jëloon la gis ngeen Hillary sax duggul woon noonu ci campagne am Biden au début endossé wu ko woon mais monde bi dafa nekk en face au coronavirus mu rey ay nit mu mu mettre toutes les économies du monde par terre ba tax ba Barack Obama actuellement dafa nekk di campagne sur le terrain comme un novice pour que ñu mën a président bi nga xam ni il a été le plus lamentable de toute l'histoire de des États-Unis afin que nous, les États-Unis aient la chance de rebondir sur leurs pattes à travers Joe Biden donc lii am tey Sénégal da ngeen koy liire ci situation d'exception situation boo xam ni dafa nekk loo xam ne musuta am c'est du jamais vu on n'a jamais vu quelque chose de pareil et les gens de Ousmane Sonko je vous plains parce que vous êtes dans le live à essayer d'influencer l'opinion vous n'avez pas plus de, capacité d'impacter l'opinion que moi vous êtes là en train de faire quoi c'est faux vous mentez Sonko euh, Youssoufa Sonko vous mentez Cheikh Diané ku fi wàccu amu fi ma bloqué sa ndey nga jóge fi comme ça man du ma fi gis ay ñoo xam ne euh, c'est des sauvages li ma bëgg a wax mooy seen xolal seen yuuxu seen jar wëlbatiku seen crise cardiaque du changer dara l'aboiement du chien ne fera pas que la caravane ne s'arrête de de de d'avancer ce qui s'est passé actuellement Barack Obama est en train de faire une campagne qu'il n'a jamais fait, jamais fait de sa vie. Et c'est parce que c'est des circonstances exceptionnelles qui yow fait que mu ñëw tey di bëgg xam ni que dafa war a impliqué wu seen ndey rek bloqué seen ndey rek yaa ko jaroon you out guys <laughs> you out yéen man yéen xamu leen ma man dama déterminé dama déterminé seen wax yooyu da ngeen koy garder seen espace yooyu man kenn mënu dox sama maay kenn mënu fii daaneel waaleykum salaam wa rahmatullah bi yaa ngi direct lan mooy sa contribution waaw maa ngi lay ziar soxna si di la jox sa wàccuwaay waaw di la wax ni ñun man sama problème mooy Sénégal dañoo am problème ko am problème bu ñu am problème mooy nit ki mhm. kii bëgg nit ki jàppale ko mhm. ci gouvernement am mhm. kii boroom xam-xam la ah léegi mm-hmm. kon Sénégal man bëgg di ñu wax ne dañoo bëgg Sénégal kon gars yi bëgguñu Sénégal. ah jar jar na la de. yow boo bëggee mu jëm jëm ci kanam kii dafa woo kii ni ko ñëwal jàppale ma ñu defar Sénégal ah waa loolu lan moo jar leen nii. sëñ bi yow li nga wax nii xoolal. xam nga moom dafa leen woo ñoom ñëpp la woo. idi ñëw. mu kër gaa ngi lakk. ah daa mel ni mu ne ko kër gaa gi lakk de. soxla naa nga indi sa paanu ndox boobu nga yoog sa kër nga ñëw ñu fay lakk bi nga ñëw indi paanu ndoxam ñeneen ña nga xam ne nag dañoo toog seen kër ne sama paanu ndox bi moom du ma ko jox ndax su ma ko joxee lakk bi fay xëy na sax dootuma jot ci nguur gi léegi nag ñu ne ñoom ñoo ëpp mérite ñoom ñoo ëpp mérite ka nga xam ne dafa sacrifié la mu yow ñii dañuy wax lu ne mën na ko seet bëgguñu may leen ñu suñ jàmm àndandoo doon benn say defar Sénégal moo gën seen bopp ngeen bëgg seen bëñ gi nga say bi ñu àndandoo dakk ko ku nekk jàpp fee kay jàpp fee ñu defar Sénégal bu fekkee ne ay xam-xam lañ moo gën fop moo gën fop jërëjëf Idrissa Seck lii mu def bak ci Serigne Bamba dama ko fee naw lii moom taw féex la lii moom taw féex na jàppale na jàppale Macky Sall ñu joxoon ni def defalee réew man àndul maa Macky ah man Idrissa fi mu nekk nii Idrissa li mu def nii kontaan naa ci de bu fekkee ni yow bu ko defee réew mi mën naa jëm kanam na def mhm. mais léegi lu ci wax nag lu ci waay wax na dangaa bëggul réew mi rek mooy comme yow dangaa chaque dangaa bëgg sa moroom de mhm. yow man man man sa laa comprendre ban façon nit lañu ko soxor rek. bon non man la mooy soxor yow bu ñu bëggee ni yow réew mi sewul man ñi woote nii dañoo bëgg réew mi kenn bëggu ci réew mi ndax lii bu ko gisoon dañoo war a kontaan ah xëcc na ko xam naa xëy na daa bëgg réew mi dox réew mi doxul. léegi bëgg xëcc na koo xam nekk na président euh, premier ministre Sénégal mhm. jamonoy Ablaye Wade mhm. xam lu bëri ci àdduna si tem fu ne Idriss Seck lu ne xam na ko Idriss Seck lu ne indi na ko Sénégal Mohamed Ba arrête de de raconter des conneries maa ngi jégalu gars yi saa waay gën continuer arrête de raconter des conneries ku ma saaga dama lay bloqué tey jàng mhm. tey kenn mënu ko fa gañe lan moo tax kenn mënu ko faa gañe moo ko fa liggéey lu ma fa liggéey la parce ah, moo ko liggéey maanaam da moo ko liggéey fii loo fi ñaxtul doo ko jariñu moom maanaam jàmbaar la idi maa moom Macky Sall teg ko ci wetam daa daa yéex li da ko waroon def bu yàgga yàgga yàgg mm-hmm. xam nga mm-hmm. lii maanaam xoolal taw féex la amul leen man de man de aw ma aw ma leen lu ma ci wax ak lu ma ci ngañ ngañ wala kii lu mu def na rafet na Macky mu demee ba am tële gouvernement am am problème mu xëcc borom xam-xam teg ko ci wetam pour mu jàppale ko. Mhm. ah waaye alhamdulilah na ko jàppale. nañu xool nit ñi ne nit ñi war a yéene yéene seen moromu sénégalais yi jàmm. dañu mhm. yéenante jàmm gis nga bu ñu yéenee ñëpp jàppale Sénégal jëm ci kanam lii lañ naan ànd defar Sénégal mais yow toog fee yow lii da nga ni baaxul lu nit def lu nga ni baaxul comme Sénégal kañ lay jàpp. yaa am droit dem raamal raamal raamal euh, euh, yaa am droit dem raamal. Euh, Pierre Goudiaby Atepa mi nga xam ne moo fi indi waa ji euh, naxasaay pétrole bi yow yaa am droit. Euh, di di di di di di wuti rendez-vous ci Macky Sall. waaye ngeen man am na xeet yoo xam ne moom. wa dëgg yàlla gis nga. xam nga laa doon wax jamono gis nga am na ñoo xam dañoo nekk seen nekk Europe. Mm-hmm. teg seen i live di wax gis nga am na loo xam da ngay ñëw ba Sénégal nga waxoon. boobaa dootoo ko defati. Mm-hmm. booy yi leen gën a say ñoo gën leen xam ne du ñu dégg nag wax naa leen ni ki bu amee ku nekk ci ligne bi rek xaar leen ba mu pare boo leen cee vas-y. donc mhm. mhm. mhm. fii ay ay millions fi ñoo xam ne ñoo gën a foog mën nañu lu booy di def am connexion toog seen biir kër di saaga wala ñuy def lu leen neex. mën nañ ko booy yooyu def. ay ay mën xoolal xoolal bu ci ñëw Sénégal da ngay mel ni xoolal oh da wut benn gaañ bu lay couvrir si pet. c'est incomparable. Mhm. mais bu fekkee ni metti nga xam leen gën a metti gën leen a xam lu bon mais teew daf nañ ko dañoo ñëw si suñu lépp daxañ ko toog di sant ka muñ mhm. mais booy defuñu ko dañoo taxaw fee am nga moo boo mës a tukki Hélène yow jàmbaar nga mhm. man xam laa dëkk randu leen laa dëkk man oh ndeysaan <laughs> sama mbokki Thiès man Thiès ko dëkk ay ak am problème boobu nii <laughs> ah daf ma ak yàlla yow li leen gën a tubaab yi leen a xoolal di mhm. du taaj am bu gudd boobu kenn xam <laughs> boo koy tontu man boo koy tontu daf may doon ay kii xanaa moom genre femme yooyu bu ñu nekkoon kenn waxatu leen kenn leen ba <laughs> bilaay ndeysaan muñ leen rek yàlla nattu yàlla la nattu yàlla la comme yàlla moo ñu ko nattoo nattu yàlla la na toog Europe rek na toog Europe di def yu muy def bu Sénégal da ngay gis nit ku dawal paaka ci potum kon nañ def profiteur ba sa France mhm. di nga gis nit ko def waaw loolu lañ a soxor gis nga boo yi nekk foofu di bandi bandi loolu ñuy wëy wëy mhm. xoolal bàyyi leen danañ gis luñ mës a gis Sénégal la bokk nañu wàcc Sénégal ba xam nañu wàcc Sénégal ay kët ay këtt geen lañ duñu wàcc fukk ñoom ñëpp ay këtt geen lañ duñu wàcc ay tàppet lañ ci ginnaaw ay écran lañ <laughs> yow en tout cas oh xoolal yow enregistré sama dinaa la kii yow ma bëgg naa yow sama waa dëkk nga bëgg naa la contacter. ñoo leen jàpp ci liggéey bi ñëwal jàpp ci liggéey bi ñu ngi ci ñu ngi ci def lu ñu mën dégg nga. ciy jàpp doole fi nga teg sa tànk. waaw te man ma àndal jàpp teg sa tànk wala Azim dañuy dem. dañuy dem dem par kenn du fi téye Sénégal. bilaay bu ñu génnee def ay damaa kontaan. Mhm. man gor laa def. non il fallait ma génn parce que influence bi ñuy jéem a influencer sénégalais ci réseaux sociaux yi daal di tax seen maayeen jëm jëm leen gëmloo yoo xam ne taxawul moo tax ma ni lu mu métti métti tey euh, feetu Toussaint la sama mbokki catholique yi man sama feet la tey aussi mais ma ni naa dugg naa dugg def liggéey bi parce que lu ñu war def la. man man wallaahi azim dama lay damay damay kontaan yow def laa damay kontaan ndax xam-xam nga fiy jëlee. Mhm. mu def yenn lépp ci ko. dëgg la xam sax élève yow. merci yow élégance ngay doxee. merci beaucoup non Thiès laa dëkk yow tamit man et puis rakku man Françoise Hélène bu président Idrissa Seck lañ ma doon wooye bu ma demee Sénégal Françoise Hélène bu président Idrissa Seck <laughs> donc loolu wax bi jeex na sama mag su ma ko toppoon sax du ma tontu su ma toppoon su ma ko toppoon rek du ma ko du ma tontu kenn mais nag xam nga damaa moom ba mu tolloo ci position défendre Abdoulaye Wade dafa doon xëcc ay mancham takk ay bërëtal xeex léegi nag loolu li ñuy wax kenn du xeex xeexam du xeex xeexu baayam xeex xeexam xeex ay xeexu doomam man ñun ñoo tollu léegi ci xeexal ko moom moo tax ñun ñoo war a takku solkap takk suñuy ndigg xeexal ko ba bés bu mu duggee pale yow jàmbaar dañoo am ndax boo xam ne ñun mus ñoo gàcceel <laughs> waaw xam naa fi mu ñu jëlee man damaa xam bu baax fi mu jëlee Thiès ñun xam nañu sama sama buddu kër man sama dañ koo tali. ndeysaan sekk moo ko tali. billaay ndeysaan macha allah. macha allah man sax sama koñ moom wax dëgg yàlla serviru ko mais tant que servir na Thiès servir Sénégal rek man bëgg naa ko te dama koy jàppale te xam naa ni que bu fi ñëwoon tey bu dellu bu ñëwoon tey kenn du jàpp famille yu mag Macky Sall di ko def ay yëf yu iñaan kenn du jàpp ay mbokk Macky Sall di leen xoxotal ak di leen def yu fu soxo man lu métti liñ ma fi teg ci réseaux sociaux te waa Ousmane Sonko teg ma ko man mënuñu ma gëm loo ni que mën nañu indil Sénégal lu baax lu ma dund ci àddina ci lu bon nitu Ousmane Sonko ma ko teg. man ñooñu xamul tax man man man ñu yéem ma quoi benn genre benn groupe la boo xam ne man maa ngi ni suivre de mhm. am na boo yoo xam ne xool ci gën a tàggat ñoom xam naa ne ay tee booy dañ daan nangu seen mburu sax école mhm. Mm-hmm. wala ñu dem kii yi nu mu tudd sax mm-hmm. écran bi nga xam ne teg ci ab bi dafa yomb dafa yomb en tout cas kontaan laa ci yow euh, bindal ma message comme ça ma ma su ma duggaatee rek xam ne yow xam nga ma xàmmee sa photo mën la ajouter dégg nga ñoo fal amul mm-hmm. donc sama gars yi def naa ni l'essentiel a été dit je donne la parole aux Sénégalais l'essentiel s'est prononcé en faveur de l'entrée du président Idrissa Seck de la en faveur du de la décision du président Idrissa Seck mu nekk lu am solo mu nekk loo xam ne bettuma merci beaucoup Mounass namm naa la di wax ni que président sa Seck doxul ci ay caaxaan doxul ci luy yàq Sénégal luy defal Sénégal da koy jagal mu sacrifier boppam donc euh, ki ci ligne bi euh, mon frère Cheikh allo Cheikh naka moom ah sama bluetooth bi woote yi moo bëri xaar ma def la speaker kon xëy na mu dem ay waay kii woote coupeel dafa am ku nekk ci ligne bi ki kii woote. waaw acca allez-y donnez mhm. waaw ñu lay déglu ñu ngi lay déglu. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la ziar di la wax ni euh, liñ doon